jërë ngeen jëf mbokk bàyyi xel su subaa léegi ñu ngi taxaw suñu jëriñ suñu lépp sëriñ Abdoulaye Diop Bichri moom it jóge ba Sénégal ñu ànd si avion bi ñëw fii teew si bisu xasida bu am solo bi nga xam ne waa xidmatu xadim ñu ngi koy amal ngeen dégg solo bi nga xam ne def na ko sëriñ Abdoulaye ginnaaw bu ñu nuyoo siyaar la ana yéen kàddu nga yëkkate jëmale ko si bis bu am solo bi nga waa xidmatu xadim amal ko waaw kay sëñ Abdoul Aziz Diop ñu ngi delloo delloo nuyoo di la ziyaara di nuyu waa Guy Mbind TV yëpp ak équipe yi ñu àndal di nuyu mbokk jullit yi ni teewlu ci àdduna bi yëpp ak mbokki taalibe yi di am ndégte lool nag ci tontu la ginnaaw bi nu ñëwee ci kàttanu sunu boroom ak ci njàppandalam ci ndimbalu Serigne Touba ñëw fii ci Côte d'Ivoire ci Abidjan nekk fii ci ajame ci plateau di fi amal bis boo xam ni nday waneeti rek ndamal sëriñ Touba di waneeti ñàkk moroomu Serigne Touba di waneeti pasteefu taalibeem yi nga xam ni foo dem ci àdduna bi rek ñu nga fa dafay wane yitte di fa wane jomm di fa wane ni ki ñu àndal amul moroom mooy sunu jataay bi nu ñëw nag tey ci bis boo xam ne xasaayit yi lañ ko jagleel te xam ngeen ni eh, lu nekk mën nañ ko waxal sëriñ bi waaye nag li mu bind moom moo ko waxal boppam mooy xasaayit yi xasaayit yi tamit sëriñ Tuuba moo wax ni ginnaaw waxi yàlla sunu boroom di alquran ginnaaw waxi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gën gi mindeef sama wax yi moo gën ci mboolem wax yi wax yooyu nag gis na ni képp ku koy jàng teraanga ngi juddoo ci sa borom di la wuy si guddi ak bëccëg képp ku koy waxtaane am nga ci teraanga ju rëy rëy képp ku koy déglu am nga ci teraanga ju rëy rëy ndax Cheikhul Khadim mi ko bind dafa waxoon sëriñ xaali sëy radiyallahu anhu fekk bàyyi xaali ànd ak ñenn ci mag ñi di ko jàng ci benn kees buntu kees taxaw fa di jàng xasaayit ndeke sëriñ Tuubaa leen di teewlu bi ñuy jàng ba mu yàgg sëriñ bi fëgg ci sàkket wi daal laaj ni ana ñooñu bàyyi xaalisa yi ni ko ñun la mu ne ko ñun la day dolli laaj ñan mu ne ko xaalisa yi sa mos sëñ bi ne hakaza ak kan mu ne ak sëriñ Ahmadou Touré Kamado mu ne ak kan mu ne ko ak sëriñ euh, Mouhamadou Lamine Gaye mu ne ak kan mu ne ak sëñ Ahmad Tafri Sugu sëñ bi daal ni ceel te wax na ni ñoom ñeent taxawoon di jàng sëñ bi ni wiir leen ngeen ñëw ma baaxe leen loolu ngeen di jàng li ci yàlla dige ba ñu wiiree ba jekki ak jataay sëriñ Touba sëriñ bi ni loolu ngeen doon jàng muy sama xasaa yi man Ahmadou maa ko ko bind man mi ko bind nag maa ngi taxaw taxawaayu njanaaw mooy picc bu mag yéen ñooñu di ko jàng muy neex yéen a taxaw taxawaayu ay laaf ci njanaaw boobu ñi koy déglu seen alal di ci dem ñuy am mbégte ñoo taxaw taxawaayu dunq yi daal ni njanaaw ndax mën naa naaw bàyyi fa ay laafam ak i dunqam ñu ni ko déedéet mbàkke mu ni kon sax leen ci di ko jàng ak di ko teral man njanaaw bi bu ma naawee ànd ak yéen nu teere ji aljanna kon loolu ji xasida la ko xasida tam jamono bii nu koy jàng ñu ngi toroxal soytaane waaye ñu ngi bàkk yenant bi di ko bégloo ndax sëriñ bi moo wax ni xasidati tubashirul mustafaa wa inda iblisa tafuqul midfaa sama xasaayit dafay bégloo yenant yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam te ngànnaay la ci ñi koy jàng ngir seen digganteeg iblis tabasamal muxtaaru min jinaasi munzu bada bihi bukkal xanaasi mu ngi noonu kon loolu mooy euh, ndaje bu am solo bii am tey ci Côte d'Ivoire ñu ciy sant nag bu baax ndax sëñ Muntaxa mi sëriñ Touba nuy ñaan mu yàgg fi te wér yebal na rakki boppam di sëriñ Isaaxa Mbàkke mi mu bokkal ñaari wéejur di ambassadeur di serviteur bu noppalul guddeeg bëccëg ngir rek tasaare liggéeyu maamam mu ñëw fi teewal fi sëñ Muntaxa waaye tam ànd ak sëriñ Murtada Mbàkke di doomi sëñ Abdul Ahad di rakk ci ñoom di jëmm joo xam ni kenn mën da tudd liggéeyu sëñ Touba ci Côte d'Ivoire te doo ko tudd ngir taxawaayam te mu amoon ci ndigalu baayam turandoom sëriñ Mouhamadul Murtada ci année 2000 mu joxoon ko ndigalu taxawal Grand Bassin muy màggal gu mag kon lii day wane reconnaître rek ndami sëñ Touba di wane ni sëñ bi amut moroom ndax réew yi bi mu fiy jaar ci tumuraanke la fi jaare woon ci fitna la fi jaare woon waaye yàlla fay na ko fay goo xam ne tey doomi réew maa ngi tuub di daanu jël di jox seen bopp sëñ Touba tey am na fi këri sëñ Touba yoo xam ni doomi réew mi ñoo ko dagg jox ko sëriñ Touba hadiya muy kër yi sëñ Touba yi fi nekk pour wane seen bëgg sañ Touba gis nga léegi bi may conférence ci français am na mbokk moo xam ni jooy na la ni lii de bëggoon nañ ko kuy taxaw wax ci sunu làmmeñ ngir ñu comprendre ndax sëñ Touba nu ñor moom la ñu bëgg a dégg boole ko jërëjëfe sëñ Touba ju ñëpp di dégg lii nag day waneete rek ni sëñ Touba amul moroom loolu réew mi am nañu ko mën a dégg am ñoo xam boo ko waxee coow li bari waaye lu jamono yi gën a dox ñëpp di xam ni yàllaa ko def ni mu ko def mu jiitu ñëpp lii mu liggéey te mu liggéey ko ci coona liggéey ko ci fitna ñu génne ko ci njabootam tooñ ko tuumaal ko am ndam tey loo xam ni mel nii taalibe yi daje seen alal ci Pastef bërëb yi gën a kawe nu koy jox sëñ Tuubaa ak njabootam ñu ko fay waxe loolu wax dëgg yàlla ku am xel ta nangu dëgg xam nga ni Cheikhul Khadim amut morom kon nu ngi lay sant sëñ Abdou Aziz Diop loolu daal mooy solo daje bi tey di santaat sëriñ Tuubaa ci boole gim nu boole ci boppam ndax sëñ Tuubaa du yow yaa ciy boole sa bopp moom moo lay boolel boppam ci njabootam ndax dafa wax ni yaquudu lii wala yaquudu min nii illa ak minanul baaxil xadim dañuy yàlla day wommat la gën a baax fa mu nekk di ma ko indil di ma ko jox waaye du jële kenn ci man ku ñuy wax baax na ku ñuy wax am na may muy dem feneen sëñ Touba boo xasee ba mus ko dara dootu la saf sëñ Abdul Aziz sëriñ Touba boo xasee ba xam ko mën a bëgg ku dul moom tayit nag ñoo yay ndax ñi ko bëggoon ñi ko liggéeyal tey ñoo raw seeni sëtë raw seeni dooma raw sëñ Moussa Ka dani radiyallahu anhu topp daal di baax ku la di dootul baax waa joo gërëm muy gën a baax waaye ko war na xarnu bi daal ni àll kërëg jaam ak gor ak ceddoog sëriñ buur ak i dak mbokk ak i jàmbur ñépp a jak jaaraama daam ci xarnu bi luy nit ku ñuul ak nit ku weex diggante askan yu dul jeex fu nekk daam def na fab seex bu mën a yor waa xarnu bi kon na koy dunde ca senegal di ko dundee ca Touba defal nañu fu ñu dem muy Touba tey ñu ngi koy dund fii ci Abidjan di ko dund murit yëpp taxawu indi Pastef di jàng xasaayid yi télévision yëpp ñëw di ko jël autorité yi génn ambassadeur bi consul bi représentant municipal bi ñëpp ànd ak ñun di sant sëñ Touba mu waneeti rek sëñ Touba am ndam xasida amati ndam kon yàlla na nu yàlla fayal Cheikhul Khadim yàggal fi sëñ Muntaxa te jàppale leen yéen tam ci seen liggéey bu rafet ndax yéen a ngi sonn ngir sëñ bi waaye nag sëñ bi rek a jara sonnal ku ko liggéeyal mu fay la ndax ñemewul jël si ko di ko dégtal àdduna bi taalibe yi nekk fépp di ko mën a seetaan di wéttali ko seen cofeer gi sëñ Touba kon kenn amul seen fay nu ngi sant mbokk yëpp lii daal moo nekkoon kàddu yi ci doon sof rek. jërëjëf jërë ngeen jëf ñu doon bàyyi xel si réew mi ak si bitim réew ngeen dégg kàddu yi am solo yoo xam ne Serigne Abdoulaye di kenn si waa ko Seexul Xadim ndax di kenn si waa ko Seexul Xadim bu ma ko waxee amul frontière si kër njabootu borom Touba gi ñëpp la amanteel waaye foofu la ñu yemale yéen lépp loo xam ne ruusee na fa rek incha allah des